Mesdames et Messieurs les conseils municipaux, chers délégués de quartier, chers invités, je suis très honoré d'être ici avec vous au nom du maire Momar Sohne Diop pour la cérémonie officielle du festival des fraises dans le village de Bonaba. Nous sommes ravis d'accueillir cette ferme agricole moderne dans notre commune. Je voudrais adresser mes vives remerciements aux responsables de l'ONG Betterwood à travers son chef d'exécution ici présent. J'en suis persuadé, notre partenariat considérablement contribué au développement du village de Bonaba. Je souhaite plein de succès au projet. Vive la marque Lacrose Fraise, vive la coopération entre le Sud et le Sénégal. di waxna rek li yombul bën ba tay fo ci commune bi mom moy vitrine commune bu Tivaouane Peulh Niaga il faut ngeen xam lolu. parce que tay commune bi amul fenn fo xam ne mën nañ gis lu melni lu mel ne seer affaire yi ma gis nii yif Europe rek nga koy wala si amul donc soo leen suñu chance loolu ñëw commune bi ñu ko village bu li ngeen wax ñaanu donc euh, lii pour la commune de Tuan Peulh de souhaiter parce que ce c'est pas la première fois Lire le premier projet il indi nañ fi école partenariat avec la mairie indi nañ fi tali ak yeneen ak yeneen yoo xam ay boulangerie ay yëpp ak yëpp kenn mënu ko lim donc merci la Corée du Sud merci encore. I would like to thank uh, uh, from uh, minister and the, uh, mayor of the Sokon. and uh, Korean ambassador mm, uh, Professor Kim, response of the Better World, uh, uh, Musha Kim, and everyone who attended to make this uh, festival. maa ngi bëgg balaa sama kàddu di gërëm monsieur le maire maire de Tivaouane Peulh Niaga maire de Sokon, monsieur le président Kim CEO de Better World monsieur l'ambassadeur madame euh, la directrice de COICA ak ñëpp ñi nga xamante ñoo fi teew tax ba fête bi rafetee nii. Also, I would like to congratulate the project manager Michelle Park and the members of the Onaba Village. maa ngi bëgg gërëm tamit euh, le directeur de projet le manager de projet monsieur Park moo ngi nii jigéen ngeen ko ak suñu délégué yi nee na tamit moo ngi gërëm yéen ñi ñëpp toog fii waa délégué waa association ñëpp ñuy toog fii. Uh, while I was in working in Senegal, I was very interested in the agricultural project of the village Bonnaba, and I was deeply moved to by your uh, enthusiasm to visit this village. Wow, Monday, de ba may liggéey Sénégal Ah, Bonoba dafa am place bi nga dafa am solo pour man dama ñëw visiter Bonoba ba pare di gis nit yi gëm-gëm ak bu ñu am seen activité bu ñu nekk di def And I would like to uh, extend my uh, commendation and congratulations to all of you who is uh, village process produce strawberries using best of the best greenhouse in Senegal maa ngi tamit gërëm ñëpp ñi nga nañu fii nii si village bi si liggéey bi nga mooy permettre production serre production fraise yi nii si serre yi nga kenn gisagu ko maanaam serre yi nga moo gën a baax ci Sénégal. Boucher and uh, uh, Madame and Boucher, uh, you can be proud to be the first in Senegal to produce strawberries in house like this facility. mun wax ak euh, fierté bi nga gëm ngeen ne Sénégal yéenay doog a produire fraise si façon buñ koy produire nii si biir serre yi. In the future, I hope that uh, this village will spread the word as a village that produces agricultural products with the most advanced technology in Senegal and is sold at the highest price. mongi am yaakaar ne euh, bu ci kanamee fi ak at yii di ñew ñan na euh, village bi ni nek producteur de fraise producteur de fraise bo xamantene dinañ xam seen produit ci aduna bi yépp ba paré jaay ko ak prix bu am solo solo. chef du village de ker Mame Manar monsieur le représentant de l'association des résidents coréens au Sénégal, chers invités, mesdames et messieurs. Le 18 décembre 2019, j'ai été ici pour participer au lancement de ce important projet de la COICA en partenariat avec l'ONG Better World. Euh, qui kilifa yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak invité officiel le 18 décembre 2021. 2019 Mongi won Théophini pour participer au lancement projet qui a un budget global environ un million cinq mille dollars américains. Un budget bu environ un million cinq dollars américains. C'est pourquoi plus de 12 ans après, j'ai un immense plaisir d'être ici aujourd'hui pour participer au partage des résultats du projet dans le cadre du festival de la cause fraise. tey nag dama content après ñaari at de fini di partager résultats biñu gis fini réalisation projet bi ci festival la cause fraise. Ce projet avait pour objectif principal de contribuer à la création d'un environnement, environnement agricole durable grâce à l'augmentation des revenus et au renforcement des capacités des habitants de la zone. kon nak projet bi ngeen gis ni li ko tax a jóg mooy di jàppale nit yi ñu gën a yokk seeni mën-mën ak seeni xam-xam wante tamit fexe ba nit yi seen koom-koom yokk si activité yu ñu nekk di def si projet agricole En d'autres termes, le projet consiste à assurer, premièrement, l'augmentation des revenus en adaptant des cultures à haut potentiel de revenus. kon projet bi lu ko njëkk tax a jóg benn mooy ba nit yi béykat seen ci lan ci jël ay. Euh, plante yi nga xamante mom lañuy jiw plante yo xamante dafa am solo dafa cher liñ koy jaayé ci marché bi pour nit yi gis ci sen bop Deuxièmement, la mise en place des installations pour la logistique, la stockage et la commercialisation des produits agricoles. deuxième point bi moi euh, nu ñuy production bi am logistique bi lépp li nga ba nga xamantene production bi fi am mën na génn dem ci biti ñu jaay ko. Troisièmement, le renforcement des capacités pour l'autonomisation de la population de village de Bonaba. def nañ fi tam troisième point mooy renforcement des capacités maanaam mën-mënu nit yi ak xam-xam bi ak ak euh, démarche yi ñu mën a def ba nga xamante ne ñoom dinañu autonome dinañu indépendant. Je profitais de cette occasion pour exprimer ma satisfaction concernant les résultats satisfaisants du projet. Grâce à ces résultats, la population de Bonaba a pu des sommets produits des fraises avec l'appui de Loangze Better World. Quand nag maa ngi profité di euh, wane sama mbégte ak sama kontante si projet bi ndax fu Better World la population de Bonaba mën nañu produire des fraises grâce euh, activité Mesdames et messieurs, la presse cultivée dans le cadre de ce projet s'est distinguée par, par sa qualité supérieure grâce à l'innovation et la technologie coréenne mise en place par l'ONG fraise qualité supérieure du lu ñuy doxantu ba di gis ci mbedd bi goût tamit ak yépp li mu àndal qualité la àndal ndax lan technologie ak lan xarañte euh, coréen. Quand j'ai rencontré euh, euh monsieur Mamnar, il euh, c'était en 1000, euh, 2012, il y a 10 ans. kon Mamnar ndax euh, relation bo len monti gis mu commencé fini liko waral moy pour il y a une fois de plus mes grands remerciements et mes grands respects pour Imam Nar. kon encore gërëm bu chef de village Mannar. Euh, chers habitants de village Naba, mesdames et messieurs, les honorables invités de ce jour, recevoir mes chaleureuses salutations et remerciements pour votre présence à nos côtés. Je Mangi remercier tous les invités les invités d'honneur les invités officiels à village de yëpp di tamit pour terre bi ngeen teew ci suñu occupe une place spéciale dans mon cœur et mes euh, pensées. Bonaba dafa une euh, place bu dans ci sama xol ak ci Pendant des années. Grâce à l'accueil chaleureux et la collaboration de ses habitants et autorités, nous y avons accompli notre vision, celle d'apporter une aide systématique et efficace à ceux qui souffrent de pauvreté, de maladies et de catastrophes. Euh, si collaboration village Bonoba ou autorité fexé nañu ba suñu vision suñu gis-gis bi ñu am fii nii ci Boulouba ak suñu gis-gis Better World mooy que ne di jàppale ñi nga xamante ne ñoo ñàkk di leen gunge pour que seen euh, euh, dundin gën a baax réaliser nañ ko. En effet, dans ce village, nous avons réalisé un programme, programme holistique conçu autour de secteurs prioritaires tels que l'éducation, l'environnement, la santé, l'accès à l'eau et l'agriculture. Konnaba est comme un enfant que Better World a adopté, a soutenu et fier de voir réussir. kon nag euh, boo leen gisee village bi fii Bonoba dañ fiy réaliser maanaam def programme bi nga global. Le global programme bi nag moo ngi laal ay secteurs solo yo am am solo yu melni jang bi éducation yu melni environnement bi yu melni euh, santé bi yu melni euh, jot ci ndox bi ak agriculture kon nak bo len xolé lolou yëpp ah Bonaba mo ngi melni rek ben xalé bi nga xamantene dañ ko adopté tek ko suñu wet fexe ba nga xamantene ñu jappalé ko mu mag ba paré réussir kon kontaan nañ si Le festival qui nous réunit ici au-delà de son aspect festif, euh, c'est une occasion pour nous célébrer l'avancée technologique dans l'agriculture. C'est serres que vous voyez représentant le futur de l'agriculture. kon le euh, festival que ñu tax même si vous ne neex na ñëpp gis nañ ko mais ce ngeen ci avez a encore technologie machine à importance ou innovation xam-xam de biiru agriculture. monsieur le maire du village aussi et monsieur le directeur général de Betold et aussi le président et le CEO de ONG Betold et aussi euh, mesdames et messieurs représentants de COICA et aussi le COPIA, chers communautés coréennes, et aussi monsieur Hong président de l'association coréenne au Sénégal. kon nag euh, maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu kilifa yi toog jaar na si ku nekk jaar na si communauté coréenne bi donc euh, mon ngi président tam fondateur Better World. Chers invités, mesdames et messieurs, je suis très heureux euh, d'être par Bibou pour féliciter la fête de fraises et sur Merci Petworld et les habitants du village de Bonapa pour leur accueillir chaleureux. kon nag yéen ñi ñëpp toog trop am naa akien, nekk ak pour fekkee festival fraise bi fête bi nek fii ak habitants de village Bonoba euh, te tam di leen gërëm ci euh, teranga. je voudrais merci. Je voudrais saisir cette euh, occasion pour saluer le travail de ONG Petrol pour la mise en place de ce projet de culture de la fraise sous terre à Bonava. Donc, nous fêtons aujourd'hui le résultat. kon nag bëggoon naa jël occasion bi nga xamante ne moo ñu fi toog loo ñun ñëpp pour euh, te nga xamante ONG Better World am na ko bi tax ñu toog fii nii pour xool résultat depuis plusieurs années, Better offre sans relâche pour le euh, bien-être de la population au Sénégal, en particulier le village de Bonavent. depuis ay at Better World moo ngi toog di xeex di pour que population Bonoba bi gën a gis si ay dundinam. Je souhaite aussi associer à ces remerciements l'agence de coopération coréenne COICA qui a aidé à financer ce projet et le centre COPIA qui a apporté son support technique ainsi que la société SCASA et la communauté coréenne qui ont acheté plupart des fraises issues de cette récolte. Spécialement, je remercie les habitants du village de Bonaba pour leur travail avec l'équipe coréenne qui fait la différence. Alors, mon mënul ñàkk bañ remercier Koika bi nga xamante ne moom projet bi wante tamit amna appui wu wa COPIA appui technique bi nga xamantene ñom ñoo andi tamit euh, seen kàngam ci projet bi mo ngi remercier tamit ñi nga xamantene ñoo ay collaborateurs di jënd euh, production fraise tel que société coréenne yi mun nañ sax wax par exemple Kasa wante tam mo ngi remercier waa Bonoba population de euh, pour euh, projet Chers aujourd'hui nous faisons la promotion la culture de la fête sous serre au Sénégal dont nous inaugurerons le premier essai ici à Bonaba grâce à World et les habitants du village. donc nous avons tax satisfaction la technique de la culture de la fraise se sert offre de multiples avantages. Elle permet d'augmenter la qualité et le rendement de la production de fraises et de lutter contre les insectes, les maladies et les mauvaises herbes, mais aussi de produire dans de meilleures conditions d'hygiène. ay soo leen di béy si biir serre day wañi attaque yi nga xamantene moy fièvre yi attaque yi nga xamantene moy mooy ak euh, dina permettre tam yokk qualité wu production fraise bi wante tamit ak rendement bi manam production bi dina gëna a Cette nouvelle méthode de production permettra sans aucun doute d'augmenter les revenus des habitants du village de Bonaparte dinañu gis ne nag méthode production bi nii du am euh, leer nañu ne dina. Ce sera un bon résultat de la coopération entre la Corée et le Sénégal. dina nekk coopération bu baax résultat bu ñu mën a wone ci lu baax ci diggante coopération Sénégal ak Corée. Un jour, un jour, la fête de la fraise à Bonaba deviendra une fête nationale comme la fête du jazz à Saint-Louis. Ah. <laughs> yaakaar ba nga xamante fraise fii bona ba dina dem ba ba melni fête festival jazz bini de Saint-Louis. C'est pourquoi je m'habille en rouge. moo euh, en rose et rouge. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et aussi, euh, pour, euh, mesdames et messieurs, euh, pour finir, l'événement qui nous réussit aujourd'hui, aujourd'hui illustre une encore fois les excellentes relations qui lient le Sénégal et la Corée depuis 60 ans. La Corée était plus pauvre que le Sénégal il y a 60 ans. On a commis beaucoup de fautes, beaucoup de fautes dans notre développement. Si le Sénégal évite nos fautes votre chemin 1. Vous, vous pouvez raccourcir le temps de développement dans votre chemin. Ça veut dire... Oui. encore relation yu entre Sénégal ak Corée depuis Ben fukki at wante tamit conditions de vie population yi ba mu donc loolu la Betowol euh, bëgg a def soo leen xoolee nag Corée moo gënoon pauvre Sénégal wante Corée def na tamit ay erreur balaa moo egg ci développement bi mu egg nii su fekkee ne nag Sénégal jot na jàng ci erreur yooyu noonu kon Sénégal nar na gën a mun a tamit gaaw développer. Aussi, je souhaiterais associer euh, cette euh, réussite tous les habitants du village de Bonava et leur adresser mes plus sincères félicitations pour cette belle récolte et tous mes encouragements pour les récoltes futures. On nag mangi ngi euh, jeexal sama di encore féliciter réalisation projet bi wante tamit di yakarne dinañ gëna am récolte dans le futur. Je vous souhaite une belle fête de fraises à tous. kon nag maa euh, une bonne fête de fraise à tous.